jërëjëf mbokk yi seetaan la 2STV jërë ngeen jëf mbokki àddina ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte tey jàkkaarloo waat ak yéen ci la 2STV télé bi nga xamante ne nii lépp luy làmb rek boo leen fi ko jàppee xam ne fii la di leen nuyu ci émission bu mag bi nga xamante mooy Bantamba ngeen amoon habitude gis ci alaaj Bekaay mu ñëw di leen bégal mu ñëw di ànd ak yéen ci émission bi te nag yàlla suñu borom dafa dogal mu dem mongo moom moom ànd na bokk na ci délégation bi nga xamante ni jóge nañ Sénégal dem ñu koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax HBK yi ñu ngi lay bëggee foofu la ñuy jaaree sax félicité gaynde yi nga xamante ne nii def nañ jaloore bu mag door nañu Ghana 2-1 wax dëgg yàlla mu nekkoon match boo xamante ne nii match bu metti woon mu nekkoon match boo xamante ne nii commencement bi sénégalais yu bëri xawoon nañ xawoon nañ xawoon nañ frustré wu mais gars yi rectifié wu nañu gars yi ñëwaat nañu vraiment ñu di félicité di félicité toute l'équipe di ñaan yàlla suñu borom mu saxal ndam li ci Sénégal ñaan yàlla victoire bi nekk loo xamante ni luy continuer la ci biir compétition bi di ñaanal gaynde yi suñu borom defal leen jàmm dara bañ leen a dal ñu compétir ci jàmm indil ñu trophée bi ci jàmm ndax prestation bi ñu def keroog ci seen diggante ak Ghana nekk na loo xamante ne nii loo am solo la Sénégal gépp kontaan nañu ci Sénégal gépp gis nañu taxawaay bi nga xamante ne nii gaynde yi taxaw nañu ko tey tout la population était derrière les lions ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni ci kanam mooy dàq foncé amul bàyyi ay gaynde ngeen te gaynde njaay nee nañu du lekk mbuum déedéet yàpp lay dundee ñu leen di bégee bu baax a baax di leen wax ni nous sommes de tout cœur ak yéen di ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye mbokk yi balaa ñoo sori dañ leen di dégtal kàddu yi nga xamante alaaj Bécaye yëkkati na ko foofu ci Mongo moom ñu ñëwaat ci waxtaan wi. borom Sénégal day dem Sénégal ah? dem man li may wax Adama laay wax toujours nan def bu ñu defee nii dinañu yóbbu coupe bi ñun ñëpp nañ xam ni kenn moomul victoire bi ku dul verte jaune rouge kenn moomul victoire bi ku dul Sénégal Sénégal moom moom victoire bi nanu sant yàlla nu gën a bëggante nanu gën a jàppante képp kuy sénégalais rek na nga sentir sa bopp ci victoire bi bu mu am xaajaloo bu kenn yaakaar ni yow la bu kenn yaakaar ni yow yaa tax ñu gañe ki tax ñu gañe yàlla la ak jour yi ñu ñaanal leen parce que vraiment ay xale lañu am nañu jom bëgg na ne ñuy def a bëgg nañu réew mi te loolu mooy l'essentiel l'essentiel mooy ñu bëgg Sénégal 2STV bi ci kaw ci kanam. est-ce que Bécaye tëb na après bi Moussa Sow. mais man je croyais que man yaakaar yaakaaroon naa ni football wala victoire dootul am ba ma tëb man yaakaaru parce que fàtte woon naa faralaate mais sama réew la nu may def aadama il faut ma tëb. dama tëb parce que fi bal bi duggee aadama parce que d'habitude ñun foofu dañ daan ñëw ba moment boobu ñu dugal lu bi loolu rek laa doon xalaat mais bi góol bi jàppee bal bi moo tax lu ne yuuxu naa ko dóoral dégager dégager mais heureusement mu dégager booy bi jël bal bi def ko ci caax yi foofoo baax le temps may tëb arbitre ne match bi tas na Sénégal ci kanam Sénégal ci kanam Sénégal day dem bu soobee yàlla na ci ñëpp jàpp. jërë ngeen jëf gis ngeen lool ah gaynde yi jaajëfee nañ leen bu baax a baax champion maa ngi lay nuyu. maa ci loo centre rab naa bu baax. la nga nuyoo ak waa Sénégal ak ñi lay waaw maa ngi nuyu ñëpp rek nuyu fépp ñi nga xamante ne ñu ngi may bëggee particulièrement samay supporters rawatina waa Ngor waa Wakam waa Yoof ñi nga xam ne nee naa leen su ma amee ndam ñoom ñoo am ndam su ma ñàkkee ndam ñoom ñoo ñàkk ndam ak waa Ndiassane axlul kunti bi yëpp li ko daggee walaata lan waar ndànk gu yett sanc bu na ndeer ba jàll Ndiassane xam nga di ñaanal alaaj mam Mamadou yàgg fi lool te wér gudd fan. ak ñëpp ñu nga xam ne ñuy bëggee rek maa lay nuyu rawatina aussi waa Jandeer ñi nga xamante ni dañ def ay délégation ñëw si combat bi waa Bayax Njar Mourine Njar Tidiane Daaru Njegéen ba Mbaawaan ca dem fépp Alassane Ndoye maa ngi bu baax jàpp si président comité rural bu Jandeer ak ñëpp daal ñi nga xamante ne xam nga jàpp nañ si combat maa ngi lay mbokk yi moom présenté wuñu leen ko parce que kenn la koo xamante ni bu ngeen ko gisee ci écran bi di xam di ngeen ko xam. moom jar ñu leen koy gis nga prestation bi gaynde def gis bu rëy bi ñu joué waaw neex na neex na en parce que metti woon na ci début match mais mujjanteel bi neex na dañ koy sant yàlla rek euh, di wax sénégalais yi ku nekk jàppe que ni boppam moo bëgg ndam buñ ko defee rek am naa yaakaar nañ am ndam dañu bañ a teel a naagu aussi ñu xam ne sport la ku nekk mën na gagné mais tamit ñu def le tout ba Sénégal jël ndam ñëpp ñi nga xamante ne yor nañ kurus mën a ñaan ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñëpp amul benn religion noonu ñëpp rek nañ ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñu jël coupe bi indi ko Sénégal. ñu football 12 ñu mën a ñu 1-0 jàppoon nga ni bien sûr parce que chaque jour moom sport moom da ngay am chaque jour confiance rek ba mu jeex te gëm naa ne Sénégal kenn mënu ko xam la nag yàlla moom buy maye day mel ni koy. mooy loolu doo comprendre mais nag kenn mënuñu daal. jàng école. waaw jàng naa nag. ba ban classe. man def naa CM2 lu tax. c' est que moment xëy na lii la yàlla dogaloon si man parce que damaa def CM2 école 1 ma arrêté ñu yóbbu ma école arabe Malick Sy ma jàng fa jàng fa jàng fa ba see euh, ma jàng fa ba cm Amar Sarr moo doon jàngal. Mm-hmm. après si laa arrêté ñëw toog toog deux ans defuma dara après ma sentir làmb et puis ma dugg si. waaye mbokk yi xam ngeen ni weekend bi dafa nekkoon weekend boo xam weekend boo xamante ne nii weekend bu safoon la ci làmb weekend bu neexoon la ndax samedi bi sëñ Modou Niang woote woon na ci Iba Mar Diop mu nekkoon combat yu neex yoo xamante xumbal bëre na fa ak kàngam am yeneen combat cartouche moo fa bëre grand combat ba ki nga xamante mooy Baara Ndiaye dañuy ànd ak yéen Iba Mar Diop ak suñu réalisateur ñu dem seeti combat boobu ñëwaat ci waxtaan wi. yaa ngi fecc lan la. dëgg la man Baye Fall laa moo tax tey làmb Baye Fall la barke maam Cheikh Fall. mais waa ji ngay bëreel nee na lu métti la lay def tey. ñëw jàpp daan ñibbi laa xam man xaw ma leneen jàpp daan ñibbi. di kattanu yàlla. day sóob ki alu weex bi bàyyi day sóob bu métti laa xam ne tey bu laa la wax di kattanu yàlla dama koy daan. xool ci biir géew bi la. mais kàngam ak xumbal. day soob xumbal lay def baax mu xumbal. la mooy kàng affaire bi kàng fóori la ay ci biir géew bi lay reere mooy ki nga xamee ni mooy Cheikh Tidiane Diouf Mbaye Massa Mbaye Massa Mbaye Massa jiriri jiriri ratatat ratatat ratatat doo ko tuddee doo ko tuddee waa ji nee na lu métti la lay def. moo kii. man dama foogal la. maa ngi du pour kii. waa Cambérène bi laa walaay dañ maa yeb. te yàqamtu ma. dama yaakaar benn waxoon nee naa fayagu ma leen léegi. si kanam la. war na gaaw. si moom la dépendre. dina xeex. man du ma ko saax saaxee. nee na waa bi bu sifflee làmb ji jeex. waaye waxoo ko dese waaye waxoo ko dese bàyyi wàllu boo du maa ngi ñëwaat si nga laaj ma incha allah. koy def. dama koy yenu ba si kaw dóor ko suuf. ma femme elle est là là-bas en ah haut. Oh. elle est où. c'est elle qui est portée le. rose mooy c'est elle qui s'est habillée en rose. ah, ah, ah la première fois de l'histoire de. de la, la lutte que ma que que on lutte. une femme accompagne mari au stade. ah oui bien sûr. Ouais. vas-y il faut le. ah qu'est-ce que Mais lui, il le sait très bien. Oui. Non, il, a, il est préparé ce combat, je suis préparé le combat. Donc c'est le bon Dieu qui donne quoi. Je demande le bon Dieu, il me donne. Oui. il a dit qu'il va se avec toi. Mais s'il il, va, il, sait qu'il qu va trouver Il a aussi dit qu'il sait bien lutter, qu'il sait lutter mieux que toi. Ah, mais toi, tu es, toi, es de lui. Ah, bon, je Est-ce que tu es de lui Bon, je ne peux pas moi, croire. Je, moi, je lutte oui merci. Bruno lay sukaar la ak Boy Niang 3 Boy Niang 3 moo ngembo ngemb bu Lagos bi Bruno lay sukaar ak Boy Niang 3 Boy moo def tent bi def dégradé noonu lay sukaar moo ngembo ngemb lu weex li ñoom ñaar génn nañ ci biti attention kawo laay lay la la attention mais la Boy Bruno ndeysaan mbokk yi nuyu nañu leen combat baa ngi noonu ci digg géew bi Laye Sougar ak Boy Niang 3 Boy Niang 3 moo nu woon ginnaaw moo nge moo ngemu Lagos bi Laye kor na ko ñoom ñaar korante na Boy Niang génn na si biti attention eh Boy Niang eh eh ah, na jël na coup mais nag Laye eh. Laye lii bu la ko Laye Sougar Laye Sougar ak ki nga xamante ne mooy booy Niang Boy Niang 3 Laye Sougar ak Boy Niang ñoom ñaar attention Boy Niang 3 ngi dul suuf wàcc na bëgg na def benn action Laye Sougar ko ko et attention Boy Niang ah Laye Sougar wër na ko nombo wër na ko nombo ay ma ngay dóor Laye Sougar fii làmb amatul dóor Laye jàppal kii ko Laye Sougar a ah, nee na da koo matt arbitre bi nee na jeex na nee na da koo matt nee na da koo matt nee na da koo matt Boy Niang Boy Niang fi dama mat ci ginnaaw dama mat ki bëri lu may mat bi xanaa amul waay ba pare wax booy Kirène moo nekk seen ndeyjoor booy Sandiara moo nekk seen càmmoñ mbokk yi booy Sandiara ngeen boo ngeen bi. ñoom ñaar ñu ngi damantay baaraam attention booy Sandiara da koo bëgg a bëgg a yoot fayu booy Sandiara booy Kër ah Kirène Sandiara Kirène loxo yi gaaw na Kirène ak Sandiara Sandiara bu yeboo sa réaction gaaw sinon bu gaawul dinañ la kaawoo booy Kirène booy Sandiara attention ñoom ñaar jàppante nañu. laay lay la laa. Boy Kirane booy Sandiara ñoom ñaar jàppante nañu arbitre bi sifflé waat na combat bi Boy Kirane ak Boy ñoom ñaar attention Boy Kirane a ngi dóor booy Sandiara a ngi fayu attention laa ilaha illallah Boy Kirane moom dóoram yi yéen façon ngu dóor la attention kaawo ñoom ñaar jàppante nañu Boy Kirane Sandiara mi ngi koy dóor ci suuf Boy Kirane bañ na Sandiara dóor na dëbb na ko dóor na ko mbot gana ñoom xamuñu ni sax dañoo rëcc Boy Kirane Sandiara attention dóor na ko mu daanu maa la wax lii eh. waa sax kireen booy fu mu jëm ni loos bi tey na supporter ndaysaan waa Diass xam nga nag biri noonu ñaari mbër yu doon bëre ñoo bokk localité ñaari mbër yu doon bëre ñoo bokk localité kii mi ngi nekk Diass Sandiara kii mi ngi nekk kireen mi ngi ci wet gi rek xam nga kan laa bëgg laqu rak jox ma ko bi mooy quatrième combat. ñaata victoire. deux deux défaites. nga ne gan soxla Pape Ndoye. Pape ndooy maa ngi moom a yem xam naa xam na ma. Mor Cak Cak mbokk yi moo nekk sunu càmmoñ. BMW moo nekk sunu ndeyjoor. attention Mor Cak Cak Cak Cak. Ndeysaan Bruno ay temps boo Musaana wax rek Bruno ne la non moo léegi léegi Cak Cak rek ma ñëw. Mor Cak Cak a ngi noonu. moog BMW a seen xeex bi nag jaarul yoon. xeex lan xeex bu normal. Mor Cak Cak ak BMW jàppante nanu ah Mor Cak Cak BMW takk na ko waaye moor Cak Cak mayu ko ndax mi ngi teg loxoom ci geño ga attention mbot na ko jël am na laar bi wax waaw kon jël am na kon Mor Cak Cak daan na BMW Mor Cak Cak ba daan na BMW moor Cak Cak am na ndam ci kaw BMW xoolal waa kër moor Cak Cak ndeysaan koo def cag-cag dama jógee sama dëkk ah lu ko def cag-cag may bëri mbabat xale ndaw ba ak sëñ Saaliw ba mu fekk ba gaara jour woo jour woo laa njëkk ak bëri avant grand combat mbabat booy bu ndaw laa la wax nii de billaa wala bu dee li ma doon am yàlla ma yëg suñu kër mu ne ma yow da nga war a tuddee sa bopp cag-cag sa bëri dafa gaaw ah loolooy moor cag-cag loo wax loo wax ci ni nga bëreeg waa ji te wax ma ni nga ni ko taanee per man dama sa père de fu ma nekk voilà grand Modou Mbaye nekk ci jara ñoom jërë ñoom waalo a isa ma nekk seen ginnaaw di entraîné lu méri gars yi di ma teg lu méri comment ah, gars yi may ñoom a jàmm ñii ñoo ma doon yees mat naal ay xale yu ndaw billaa wala ñoo ma doon yees mat naal jugóñ dem mat naalu mais sant la ba tuux yi dara cinquante sûrement beeñ xagin kaayal barit malaay billaa wala tala malaay yi lil goon ñandi do caaya mais aja inshallah pour lu tudul pour tala na mais aja piqué ba ci kanam ko ñaar yi nga xam léegi waa ci kanam ko moom moom xam na ko moom xam na li ma jox waa Kéba Cissé xam moom waaw du ma ci commentaire dinaa ko ko jox yow tapet na nga ay Pa Kéba yow ngay tapet ok yaa ngi jàpp sànq ba léegi lan la yaa entraîné rek am confiance quoi ñaan yàlla may ñoo waaw combat i nu muy demee. non nu muy demee bon bàyyi naa ko ci yàlla rek ñaan yàlla may ma ndam rek ci kawam. waaw moom nee na bu arbitre bi sifflé da la daan la du la jàpp. dóor mu daan dama ko ëpp doole quoi vraiment. waaw dama ko doole. sama gaynde gu ndaw gi gars yi ma koy may yëpp nanguwuñ ko jël. gaynde gu ndaw am naa si benn mooy gàlla mooy PA. wax rek amoon mooy PA. Ah. wóor na borom noo koy def yow noo koy def. boobu noonu ah. waaw. waa ji nee na combat bi bu arbitre bi sifflé mu dal sa kaw duma la daan la. kii dëxala xanaa gis nga dëxala amul doole. ñun dañoo woo kooku ay ba daaru lañ. xoolal booyee la ñeneen ñëpp xoolal gaa yi la ah wala booyee amara ak tir ba borom kon day métti ci moom. torop yow yow yow xam nga ne yow mooy loolu yow bàyyi faa am lu sedd. nañ la. booy maa la raw. lu gaa yi aa ah gaa yi ñoo ngi wax mais am na yenn mbër yoo xamante ne dañ leen seeti dañ naan joomam Malick Ndiaye mais. bu leen promoteur yi seetee appareil bi doo xoolee ba si biir ruux xaw ma ruux xaw bërëb bi la nu demee noonu. na jël ma daan ko parisien bu faas na jël ma daan ko Paal dafa bu faas yaa gis SMS yi na jël ma daan ko. ki kenn xamu ko voilà loolu la nag. jël ma ma daan ko. man kenn xam naa maa dàq bëre. Eh, man mii maa la dàq bëre yow. waaw yow kii dara la xëcc ci kaw kaay ma eh, ko eh, ma daan ko waa ji dégg naa feebaru daa feebar delloowul avance. ah ça dafa amul kayit kayit yee parewul rek. kayitu lan kayit yi ko indi fi. waaw ah, kayitu États-Unis moo matu. mais ba mu xamee loolu nag waroon nañu libéré quoi comme que ñun ay xale lañ amuñu lu dul làmb ñoom ñi ngi extérieur toog foofu di dàq seen wërsëg yàlla na leen yàlla may wërsëg bi ñuy dàq foofu ñoom ñëpp mais franchement waruñu sonal nit ñi si dañuy wut fii ay combat te duñu mën a ñëw pour bëre ko mais boobu ba depuis ba combat boobu yàqoo ba léegi amul benn mbër boo xamante ne sama génération la te promoteur bi seetu la jox la wax la wax ak yow prix boo xamante ne moo normal te kenn nanguwul bëri ak. mais dégguñu ci soleil bi Ablaye Ndiaye ne pare na pour bëri ak yow. Ablaye Ndiaye laaj ko promoteur bi dem seeti ko yaakaar xanaa lool journal bi def na ko mu koy laaj ay cachet yoo xamante ne sunu ay grand sax wuñ ko mooy en tout cas daal làmb ji léegi dafa nar a yàqu ci ñun suñu côté ndax dañuy moytonte conseil yi te ñun ñoo war a bëre. mbokk yi Ameth Deme numéro 2 ak Papa Sow Ameth Deme numéro 2 moo nekk seen ndeyjoor Papa Sow moo nekk seen càmmoñ Ameth Deme sànni na gauche droite attention Papa Sow doon na dugub Ameth Deme numéro ak Papa Sow attention temps yii nañ ci biti. Ameth Deme ndeysaan na jël Ameth Deme attention Papa Sow Ahmed Deme ñoom ñaar ñi xeex ndeysaan Papa Sow jël na tànku Ahmed Deme waaye génnaat na Papa Sow mii Papa Sow ak Ahmed Deme ah, Papa Sow ni ngay duggee baaxul nag yow it Papa Sow ak Ahmed Deme attention Ahmed ñoom ñaar ñi ngi xeex Papa doon na jël Ahmed Deme door na ko Papa Sow ak Ahmed Deme kii dinañ Papa Sow ma demulee billaay day manqué. Ameth Deme Papa Sow jël na ko jël bi baaxul attention. rëq dóor mbaj lu ne la Ameth Deme di def waa ndax Papa Sow taxawul bëre Papa lii du bëre lii ngay def du bëre Papa Sow xaw ma kan mooy coach am mais lii muy def du bëre ah Ameth Deme am na ndam ci kaw Papa di nga daanu bul jo ah taxawoo defoo dara bañ joxe victoire nga bëgg a jooy vraiment mere naa la. Babacar Diouf ndiko cuun lamb nii la nee naa la aji ndeyu ngom ni wawe sa yaay du tin oram bakaray sa leen léegi mbar ngeen mu ngeen la fana waaw waaw bu guddee fay fanaana waaw waa ah, jom dal yaay aa jom galle jom galle mbar galle yaay maak yow daan di way cosaan di way si cosaan la mami bay woon sukki tëri leen léegi ngay demee la fanaana wàcc ma wóorul ku daan kaw mënoo daanu di daaneel dakkaay mu yaay faatu mbaay waaw waaw bu guddee wax ma ko yi fanaane ay mbargale mbargale yaa Modou Mbaye mbargale waaw waaw bi arbitre bi sifflé na bébé bismillah ak Santang Junior Santang Junior moo nekk sunu ndijoor mooy ndaamali bébé bismi mooy njool mi nekk sunu càmmoñ lay la laa Tann Junior Bébé Bismi ñu ngi ci sa jomi ba Mar Diop ñu nekk tey ji samedi attention Bébé Bismi dóor na korno dóor na at na santan ñu ngi Bébé Bismi santaan Junior santaan na ko Bébé Bismi ñoom ñaar ku ci nekk rëpp nga ñaar santaan Bébé Bismi attention koronte nañu Santa attention attention Bébé Bismi mi ngi dóor Santa laa ilaaha ak Santa Junior Bruno Bébé Bismi ngi tekki gàllaaj yee yee daa nar a bëre xanaa da ngay mu lay kii mu lay puus di la génne puus nga ko mu génne kenn anak kii ok arbitre bi sifflé na mbokk yi Santa Bébé Bismi Santa ah Bébé bëgg naa mbot Santa bañ na Santa nag daa bëgg a génn bëre daa bëgg a génn bëre ba Santa Bébé Bismi jàppante nanu Santa ak Bébé Bismi laa ilaaha illallah attention ah Santa Bébé Bismi Bébé Bismi bëgg na laa bëtt wër la waaye ndax Bébé Bismi dina ko ko may Santa attention eh ndax kat amul amul déedéet wër na ko ndombo Bébé Bismi ngi dóor ngi dóor ci suuf Bébé mi bañ na oh Sanda daan na Bébé Bismi Sanda daan na ko ndeysaan oh lamba ngi sant Bébé Bismi jugal oh Bruno xool supporteru Bébé Bébé Bismi bàyyi naa bëri daa mel ni lay wax. bilaa walaay bàyyi naa bëri wala alxuraan bàyyi naa bëri. eh bul bàyyi bëri. wuu bàyyi naa bëri bàyyi naa lamb. bàyyee bëri bàyyi bàyyi loo mën. nga bàyyee bàyyi loo mën. si tuuti tuuti. na i war a indi indi woo di passe da nga daan mu neex trop ñu sëmbale tey buñ la daanee gëmal yàlla ñu sonal waaw yow lan la mu ñibbi bàyyi la loo wax ci làmb ji combat bi yàgg na tuuti rek te metti na xama lan moo tax ma ma man la bi saison bi tijjee ba tey gagné gum naa ñetti nag man dem di compétir man bu doon làmba damay dem di compétir te mi mos naa kaa seetaan làmba te moom mos na ma ko mos a seetaan te moom xaw ma moo tax ma jël ko te combat bi lu nekk. bi mooy sa ñaata combat. bi bi bi mooy sama deuxième victoire. deux victoire benn défaite. maa lay ziar. waaw màggal naa Modou. naka Italie ak naka ngeen di dundee làmb foofu. waaw ñëpp si jàmm ñu ngi sant événement yi day doon événement yoo xam ne moo ñuy wéetali parce que gars yi yenn saa yi mais dimanche jot gaa yëpp daje ensemble togg benn ceebu jën lamb ji toog di ko seetaan muy neex dañuy divertir wu lamb ji moom vraiment affaire yi neex na quoi gars yi ñu ngi li ngay def yow ñu ngi lay bëggee moom. lan ngay wax waa Italie nuyu leen. waaw maa ngi bëggee gaa yëpp di bëggee moo Diop sama doomu ndey di bëggee gaa yëpp na ko Sénégal tam xam nga namm nañ la mais sëñ Fallou lu mënul ñàkk faw ma am door rek lu mënta ñàkk ñu ngi nuy waa Sarre ñaa tamit very good very nice sama fans yi ñëpp maa ngi leen di bëggee Italie xam yow very good very nice am na loo xam ne kenn du ka ko wax. mais nuyu leen ci italien. waaw ma ne ko ciao fratello ti saluto tutti quanti David very good very nice tutti may fans tey na nu ñëw ak booy xumbal xumbal very good very nice booy bu am bi mooy premier combat spécial bi dox ci diggante xumbal ak kàngam xumbal moo nekk seen càmmoñ moo ngemboo ngembu lu ñuul moo nekk seen dejoor moo lagos bi. xumbal sànniwaat na beneen góos. Xumbala Kangam ñoom ñaar jàppante nañu attention Kangam doon na jël la ilaha illallah bëre rapidité bëre action action rapide Xumbala Kangam ñoom ñaar attention eh, eh, arbitre déedéet arbitre déedéet déedéet déedéet arbitre arbitre arbitre woo leen ñu bëre loxo baa ngi ci ngembam loxom mi ngi ci ngembam loxo mbër maa ngi ci ngembam woo leen ñu bëre woo ñu bëre woo leen ñu moo gën xumbale ma bul yàkkamti combat bi eh eh. xumbal dafa bëgg a te ki muy seeti ndaanaan la boo xamante ne danaan tekki taxaw di ko xool ñoom ñaar daje nañu xumbal ak ñoom ñaar jàppante nañu xumbal kàngam mi ngi wut fu mu jàpp xumbal jàppoo te ki ngay bëreel jàpp na xumbal ak kàngam kàngam am bëgg def xumbal bañ na xumbal ak kàngam ah waaw kàngam ko daan na ko doole doxul jàmm daan doole doxul jàmm kàngam daanaan la. xoolal waa kër kàngam waaw waaw oh doole doxul jàmm dugal làmb la làmb la làmb la làmb la làmb la làmb la làmb la làmb la. kàngam jëmm saa mbooloo sant Père bu baax Père Omar Sarr bu cinéma na ci bu baax combat bi. bi nga ko daan jëli bi ko daan. sama yaakaar may. ni nga ko daanee. boole ñu jàng rek. dañuy jàng rek waa ay boole. loolu non dama ko fàq mu ñëw ma ma ma daw soog a daa taw nga ci xabal bi. mais dañ laa seetlu dañ laa da nga téye trop ci combat. non loolu mooy côté ni sax ana waa xam maa ci kaw na laa bëggee mais yaa nga baax na. mooy sa ñaata combat. troisième ñaata gu des na quoi il soo commencé ndeysaan Bruno combat avant grand combat baa ngi noonu sama yaay booy Fatou Wade joyeux anniversaire yàlla na nga dund 111 ans mbokk yi Zator la moo nekk suñu ndeyjoor moo jàkkaarloo ak ki nga xam mooy Boy Diop moo nekk suñu càmmoñ ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Zator Boy Diop Zator Boy Diop ñoom ñaar daje nañu jàppante nañu Zator a ngi door ci suuf Zator ak Boy Diop Boy Diop wàcc na samp na tànkam ci suuf Zator ba gën na suufee lu mu bëgg a def Zator Boy Diop ndax combat bi day gaaw nii laay lay la laa Zator mi ngi dóor ci suuf waaye Boy mi ngi sëgg Zator Boy Diop Boy Diop Boy ko Boy ak Zator laay laay la laa war na ko nombo war na ko nombo ndax da koy buddi eh waay ndaw Samba laay laay la laa waaw waaw moom it war na ko nombo moom it war na ko nombo ndax da koy def. eh waay waa li rafet na waay waay Bruno Bruno li c'est l'action de l'année yëkkati na ko ba ci kaw dóor na ko ci suuf eh eh waaw waaw Zator waay Zator waay Zator waay Zator waay loos nañ waa loos ba nañ la ilaha illallah eh waay waay lu rafet a rafet waay gis nga boo lu rafet. nit ñi dañuy kontaan si yow. bi ba nga daan rek daw. non parce que ñii ñii la ñu am ñii nii surtout son père ñii la ñu am amuñu seen fay loolu tax ma daw ñëw fii parce dañ may jàppale billaahi wallaahi dañ may jàppale. action bi nga def nu mu tudd mu wër la ndomba loolu lan la. waaw loolu dama ko mën depuis loolu yàgg na laa gën ci mën moom yow yow laa may combat bi yow sama gaan la tag du dañuy déggante ma ak maa ngi gërëm waa États-Unis fi ma nekkoon ñoom xam nga Aliou sama grand Aliou Ndiaye dafa jàpp ci combat barki alxuraan kër nekk fa nekk États-Unis di ma envoyé xaalis billaay wallaay di def ay saraxam depuis États-Unis di gërëm sama Mamadou Len di gërëm Ngóoni mi ngi Alaska ak jëkkëram Chris ak ay doomam bi mooy seen cinquième combat. trois victoire de défaite. kan moo ci des. waaw mais kii moo ci des nañ ma jox kii. Baara Ndiaye bu ko daanee mu ñëw mu daan ko. ndeysaan mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bu mag baa ngi noonu dox ci diggante Cartouche ak Bara Ndiaye ñu nekk ci samedi 17 décembre 17 janvier 2015 Bara Ndiaye Cartouche attention ñoom ñaar daje nañu waaw Cartouche Bara Ndiaye laa ilaaha mooy ñoom ñaar ñoom tel nañoo bërege di ku ne rëpp nii lu nuy ak Cartouche ñoom ñaar Cartouche ak Bara Ndiaye mi ngi ñaan rek attention laa ilaaha Balla Ndiaye daan na eh oh. waaw mbokk yi gis ngeen gis ngeen combat boobu ni mu demee seetaan nga combat Cartouche Bara Ndiaye. waaw seetaan gis nga ni ko Bara Ndiaye gis nga ni combat bi demee. waaw seetaan naa combat bu neex la ñaari ndaaraan ñoo doon kenn ki ñàkk na kenn ki am na. Mhm. bu mu tax tamit ki ñàkk a découragé. Mhm. liggéeyaat rek làmb moom ci kanam la. làmb li ci kanam la mais foofu bu ñu fa taxawee sa pour wax ak Cartouche di ko wax ni moom ndaanaan nga Cartouche ndaanaan nga ci làmb am na xam na xam naa am na lu la manqué am na loo xamante ne nii manqué na ci yow ba tax defe di xaw a tegloo mais bu mu tax nga bàyyi toogal yow kase wala nga toog ak sa ay kilifa nga xoolaat sa bopp nga xoolaat li nga xamante ne moo la daan may ndam te defatoo ko nga xoolaat li nga xamante ne moom nga bàyyi ba tax ngay ñàkk jamono yi nga xoolaat sa bopp yàlla dina la indiwaat ci làmb ndax ndaanaan nga teet xale nga xale du ñàq dara yaay lu bari mi ngi sa kanam tu as l'avenir devant góor góorgóorlul nga ñëwaat ci làmb ndax làmb yaakaar na la sa ay supporteurs yaakaar nañu la te yow it sa waa kër yaakaar nañu la tey gëm nga sa bopp góorgóorlul du courage nga ñëw incha allah dina baax ñu ñëw mbokk yi nag ci bis bi nga xamante ne nii ci nga bëree mu sa diggante ak Pambaay mu nekkoon combat boo xamante ne combat bu neex la est-ce que xamoon nga Pambaay bi nga koy jël. waaw xamoon naa amoon naa lu ma xamoon si moom rek. loo xamoon ci moom. lu ma xamoon si moom mooy seetaan naa ay combat am même même même bi ma nekkee si biir préparation combat bi sax un mois yu mujj yi. dama doon def à chaque instant su ma jógee salle war récupérer ay trente minutes damay toog si machine bi xool ay combat am di ko analyser xool nan laa war a mën a bëri ak moom loolu tax loolu tam tax na ma gën a xam si moom lu bari. Mhm. mu nekkoon mbër moo mu nekk mbër moo xamante ne nii seen ci génération am mën nañ ni ci ñu dàq bëri ci génération am la bokk nekk na koo xamante ne nii ku dangereux la est-ce que loolu bàyyi woon nga ci xel bi ngay bëree ak moom est que loolu sa waa kër yabee nañu la ko bi ngay ñëw. combat bi moom daa nekkoon la nga xamante ne nii même bu dul woon Pape Mbaye sax mu nekk keneen koo xam ne nii moo gën a supérieur Pape Mbaye sax daf maa jaraloon. Mm-hmm. waaw te lu la jaral nag da nga koy jox ak xam moo tax combat bi dama kaa jox ak xam Mm-hmm. naka nga ko préparer préparation yu metti yu metti yu metti yu mettee metti sax xam nga di ànd ak sama ay mbokk sama ay sama ay ndijaay sama ay rakku yaay sama ay ñëpp dañ def si combat lu xamante ne sax man daf ma impressionné xam mm-hmm. def leen jaral ñu def si seen xaalis jël seen alal yëpp def ko si combat kon tey combat bi lii rek moo mënoon am bu ma ñëwee du ma saax saaxee sama combat damay dal ànd ak tey tôt ou tard ndam day am te si karam suñu borom gëmoon naan maa koy am. Mm-hmm. nga ñëw ci biir làmb ji ma gis la maa ngi lay seetlu ci biir làmb ji yaa ngi daw yaa ngi fecc yaa ngi foo ak sa ay supporters te ngay bëree mbër mu mag lu taxoon loolu. waaw parce que moment boobu dama ñëw si combat bi. Hmm. ñëpp ñu ma àndal ma gis nu ñu stressé parce que gis nañ pambaay ak kii bi mu indi offre bi ñu def calme léegi bu supporters yi demee ba seen xel na a génne si combat après nag ma ne moment bi jot na quoi luy jot jot na tôt ou man ak pambaay ñooy bëri si géej mais kon ma. jox moral sama ay supporters ñu xam ne tamit seen jour man maa ngi si làmb bi quoi. Mm-hmm. nga ñëw ci làmb ji nga gis stade bi ni mu feesee lan ngay wax promoteur bi. waaw promoteur bi moom damay wax sponsor yi ñu jàppale moom ndax tam xam nga war ñu seetaan làmb bi muy nax saay noonu quoi même bu dul Modou Dia bu dul keneen ak keneen làmb bi am na lu mu def si réew mi kon war ñu seetaan promoteur yi ñuy dem ndox ma noonu. Mm-hmm. di leen jàppale promoteur boobu ku jar a jàppale ak yeneen ak yeneen yi fi nekk ñëpp dañ leen jàppale quoi problème sponsor financier lépp. jàppale promoteur yëpp noonu la ñuy jaaree àndaat ak suma jumeau Bruno mbay ak suñu réalisateur ñu dem Iba Mar Diop seetaani combat Jax production bi nga xamante ne tëggoon na ko ci diggante doomu dangu ak Tyson 2 combat spécial ba nekkoon Pape Mbaye ak moom Modja mbokk yi ñu ñëwaat ci waxtaan wi. jeunesse Bruno bu làmb neexee xale yi la Bruno bu làmb yëngoo xale yi la waa Tëngéej a ngi nii ñi ñoo ñëw gunge doomu Dangu waa Grand Dakar a ngi nii ndeysaan Pape Sène naka waar. nii rek. siyaar nañ la. waay fii la ëppee. tey bi lan la laaj. ginnaaw gëj a la ak si gaamu Ndiassane gi passé. waaw waaw waaw yàlla na yàlla nangu siyaar. tey bis bi lan la laaj. ginnaaw gëj a bëri. non bés bi concentré rek xool sama waaw ne teg rek tey. loolu bés laaj. mu ne du la may dara bu arbitre bi sifflé sa kaw lay dox. non man du ma ko may dara man du ma ko may dara. waaw kon dañuy daje bu soobee yàlla. dañuy daje. da ngay dox si kawam. non waaw lu mu laaj rek lu combat bi laaj rek. yow ñeme nga doomu gaynde. doomu gaynde ah. ñu lay gaynde lañ. ñeme nga doomu gaynde yow. Sion Lion. tey bis bi lan la laaj. bakkan moom mu ne du la dara bu at bi day dox kaw. da koy essayé du ko def moom paa la paa la bu ndaw laa bu ñëw man maay dem. day yàgg wala. bu mu laaj rek waaw kon combat bi dafa war a neex warul gaaw waruñu ko abréé dañoo rëbbëre lu metti kontaan waaw ma daan ko dem ñibbi waaw. sama génne gu ndaw gi su ma la ko mayee noo koy def. dama ko ragal. Boy Reef la ak Tapha Gueye Junior Tapha Gueye Junior moo ñu wan ginnaaw moo ngeen boolu weex li Boy Reef dóor na Tapha Gueye Junior fayu na ñoom ñaar ñi xeex jàppante nañu. parlement Thiam <laughs> boo def Tapha Gueye Junior Tapha mi ngi dóor ci suuf booy reef booy reef a ngi dóor Tapha a booy reef jël na tànk bi takk na ko ñoom ñaar yegg nañ ci suuf ndax da koy tegal sees ndax booy reef day tegal sees wala Tapha Gueye da koy mbot xattar bi la wala lan la mot na ko bañ na ñoom ñaar yegg nañu suuf toog nañu waaw waaw oh Tapha Gueye Junior nga xeex nga daan nañu la làmb jàngoog cey lamb tey ji kii la ñuy wax booy Sitor. waaw ah, ah, bëgg bëgg. naka waar. waaw sant rek. tey bis bi lan la laaj. waaw bés bi ak yàlla may ñu ci kàttanu yàlla waaw. mu ne mu ne du yàgg bu arbitre bu sifflé day dox sa kaw lu mu fe lu mu am day jël. waaw waaw arbitre bu sifflé moom maa ngi koy xaar bu ñëwul man ma jëli ko ci kàttanu yàlla. kooku la ki ngay bëre kii kii maa teg lu metti. la nii man caaree laa dëkk quoi man lébu laa. lébu na a teg lu métti parce que day tegoo lu si géej gi moo tax waaw. loolu loo koy def. kan kii bu arbitre bi sifflé ma ñaari poos yebal ko waa gaalu lakk ñu ful yaa ngi daw rek. waay su kontaan bëgg a daan ñibbi rek. da ngaa yàqamti mu ñëw. waaw dama yàqamti mu ñëw ma daan ko ci ay 5 secondes yooyu dem ñibbi. billaahi day gaaw wala. waaw combat bu gaaw la doon bokkuñu man xale la dama nekk si yoon te dañ maa yónni yàqamti ma waa parcelle. inde 12. nu mu demee. yaa ngi xëppoo rek lan lan. waaw yàlla rek waaw. waa ji nee na bu arbitre bi sifflé lu metti la lay def. day soob mag la bu ma ko jaabee du ma ko may dara bu ma ko del xool laa yaa ngi fii ci laamu ji xoolal laa koy def dër ko dom sama Ndoye Laxas la ak Caatu Buun déedéet Ndoye Laxas ak Super Jamono numéro 2 Super Jamono numéro 2 moo ngemboo ngemb bu vert bi Ndoye Laxas moo ngemboo ngemb bu rouge bi ñoom ñaar daje nañu ñu ngi xeex attention KO. Ndoye Lakhas super jamono ah Ndoye Lakhas daan na super jamono numéro 2 daan na ko daan ko daan na ko daan na ko. a lamb bi waaw noonu la ko a tuddee woon quoi. bi ma sa ñaata combat Ndoye Lakhas. cinq victoire benn defar la am. waaw kan moo si def. instant yii mais gars yi nañu jël avance kii mooy xanaa moom kii man nii sax. ñett ñaari mbër ñoo njëkk a delloo avance kii moo ko jël billaahi wala taalaay kii mu jël jël nañ bàyyi affaire teg yi na suñ biir ñoo mën a mayante xaalis quoi affaire eh, lan ngay def sabla ah. lan ngay wax ni may wér lan ngay wax dama julli par di wér rek waaw lan ngay wax lu may wax kon la ngay wax si per damay wér astafurlah astafurlah wér ah tey bis bi lan la laaj bis bi lan la laaj man waa géej ñoo gën a gore waa géej ñoo gën a gore ñëpp a jàpp si combat bi si xaalis si ñaan si lépp si jëf si lépp duñu ko duñu gën a goree daan lan la mën a fayee daan yóbbu leen tam liggéey waay si kattanu yàlla waaw daan leen jël bu rëy laa ko def daan moo jël du ko tànn ko moo jàmm ne moom xale la te dalay def lu moom xale la moom du xale maire la du baax du baax maire la man événement naar laa judd 89 laa nga na may nii waaw ah, yow 89 laa man waaw mais ñu seetlu sa ay combat day yàgg day métti tey nan lay demee gars yi ñoo ruux loolu borom yu métti. gars yi ñu ne booy bëree da ngaa bëri caaxaan ci bëri. non bëriwuma caaxaan yàlla moo ñëw ak dogalam rek. da ngay bëreel public. non bëriwuma public. li war a am la am na lu ñu waroon dal la destin la day am mu ñàkk waaw dañuy dem wëriwaat leneen rek ay xale yu ndaw la ñuy liggéeyaat waaw amul benn problème Balla Diouf man Grand Dakar laa dëkk. barki borom daar man ma dëkk Medina man samay poos kenn du jege. borom Medina man samay poos kenn du jege. Grand Dakar laa dëkk Medina moo jur Grand Dakar waaye. man Big Town laa dëkk. waaw Big a ñor Medina moo jur. Grand Town moo gën a métti. jur Sicap jur ay Grand Yoff. xaaral ma wax ak Yane Faye. kii tapet la moom. kii na ñëw ñamaat ko muy nekk fii ay fëgg tëb. nañ ci. maanaam maanaam xel moo mënut a daj ñuy dox combat bi Feugueleu ak Balla Diouf man ma ci ñëw di ci dox eh, loolu xel daju ko quoi. bu nekk sa wërsëg la eh ñëwanteewoon nañ bàyyi leen moom Feugueleu ñu ñëwante. bu nekk sa la ñoom ñaar ñëpp xaj nañ ci yaa may dégg mais moom foog ma ñamaat ko comprends nga. kii foog ma maa yow ñamante woon nañ ñam naa la. léegi dama Feugueleu ñam la dañu wax mbër ñetti yoon ñeenti yoon yëg ni bëri na fekk mbër ñetti yoon lu mu naan lu fi jaaroon la di daw. taay si nga mais wuy ma avance bi gaa yaa ngi daw lan la lu xew waxoon naa leen wàññi naa ko état bi sans kese laa nañ ñëw sama yaram dafa tàng ñun waa taay si nga ñu ngi liggéey lu doy waar te dañu war a exploiter loolu si saison 2015 wane suñu bopp ndax ay xale lañ dama bëgg ñu xam ne affaire bi taay si nga la. mais comme que avance bi am na fu mu xaw a tagee léegi yow sa ci kan la xaw a nekk. Modou Mbaye Sénégal àdduna xam nañ kañ mooy bu taay si nga du ma ne ma Samba. du ma ne ma Demba promoteur bi nee na ma seeti na Balla Diouf nee na ma seeti na Feugeula du Feugeula ak Balla Diouf rek ñoo fi mbër boo ma xoolee xam ne dama liggéey te dem pour gaa yëpp laa sama xel du ñuy de ñi si kaw laa damaa bëgg ñu jox ma si gaa ma promoteur bi gaaw ma tooyal sama xaftaan wane sama bopp si kàttanu yàlla. musuma bëre arène bëri rek laa bëgg exemple ren laa bëgg gaa yi gis ma senegal gis ma quoi ren dama bëgg a wane sama bopp ci làmb yi ci yàlla suñu borom. Caatu Buuna nekk sunu càmmoñ. Ron tamit mi ngi def dégradé bu baax. Ron ak Caatu Buun ñoom ñaar. attention Ron dëbb na ko col caxabal nañ koo waaw waaw. Ron daa dëbb col taxaw Caatu Buun mi wëyu la laa ilaaha illallah. waa caatu bu. non bàyyi ma bàyyi ma. bàyyi naa bëri. affaire yooyu lu tax ngay bàyyi bëri. non duñ bàyyi xam nga rek ni fa demee la xam nga ak kàmbuleen ni mu teewoon yow yaa ma gën a xam yow gisoon nga xam nga moo loolu waa kàmbuleen waa Massa Ngelaw a teew waa Sumbujun sama mbokk yi ñëpp a teew waa Yoff Lébu ñëpp a teew mu ñëw xam rek bis demee noonu. man ak moom combat la parce que zone technique man xam naa la baax. kii ba moromam. xoolal kii dañoo bokk télé rajo Dunia Ousmane Diouf invité ma invité la man xam naa la baax kii demul kii boobu ba léegi bëriwul kii Bruce Lee numéro 2 la kii toj Thiès barke Alxuraanu Karim toj Thiès barke sëñ yow doo dara barke Alxuraanu Karim ma la jëlee defal la bagage lu cëru defal wuli de na ñëw ñu bëre Alioune Seye kee la ci la nekk nee na ngeen bëre kee moo fop moo ma man bëre ma ak moom gi duma ak moom ñëw may après gars yi bu yëg mais lamb lamb boole ma ak kële. kaay nu bëre. ñëwal nu bëre. kii mag la boo dawul xam boo dawul xam. tey bis bi lan la laaj. ah xam rek bëre waa caare ñu may xaar maa yónni tey ak kantima. Mbacke Faye sunu moo nu wan ginnaaw. Baye ma ñëw numéro 2 sunu ndeyjoor. ñoom ñaar ba Mbacke Faye ngemboo ngemb Lagos bi. Baye Mandione numéro 2 Mbacké Faye Mbacké Faye jàpp na Baye Mandione numéro 2 jàpp na ndax da koy tël ndax da koy tël laay lay la laa Baye Mandione 2 Mbacké Faye Mbacké Faye am na lu mu doon Baye Mandione am na lu muy def <laughs> Mbacké Faye Mbacké Faye am na lu mu bëgg a def Baye Mandione a ngi bëgg a na ko woon na ko na ko suuf laay laa xëy eh waaye ndaw Samba allahu akbar allahu akbar eh waaye ndaw Samba allahu akbar allahu akbar ba léegi maa ngi jàng waaw maa ngi jàng ban classe def naa terminal aw ma woon bac mais maa ngi ci formation formation lan ngay def pharmacie pharmacie waaw. yaa ngi koy boole ak làmb waaw maa ngi ci di xaar combat boobu ba léegi mais sama morom yi nanguñ ma jël wax si nax ñu jël ma waaw. saxal ci kan laa ne. ñëpp sama morom yëpp instant bi du ma laaj sama morom yëpp nañ ma jox combat ma bëre saison bi waroon naa bëre heure bi waaw. ban heure ngay jàngi. damay jàngi huit heures ba midi di def jour parfois ma def journée continue ba quatorze heures wala seize heures ma koy cinq heures yu ma day def ñëw jàngi ma wàccee demaat contact. waaw du metti non non tàmm nañ ko te bu ñu ne ñu koy def tàmm nañ ko jaajëf mënoo bëre amoo fi waaw loolu li lu mu yàkkamti di ko wax la rek ñu ngi si biir làmb ji jeexagul combat bi nan lay demee tey nan nga ñëwee bare rek pour am ndam lépp loo xamante ne nii war nañ si combat def nañ ko pour am ndam xam nga ko xaw ma ko seetaan nga ko waaw seetaan naa ay combat am nii rek xam nga ndaanaan la waaw xam nga ndaanaan moom ñaari garmi ñoo koy jur taman moom la taalibe Ndiassane laa du ma sarli la. ah non mais dama ñëw lan ngay liggéey si. ak Malick Thiandoum. da ngay dem waaw. da ngay ñëw si lamb ji. waaw lamb ji ah. léegi man ak mbëri la. loolu dina métti. torop. mbokk yi combat ngi noonu Sitor Ndour bu Fass moo nekk sunu ndeyjoor Alla Gaye numéro 2 bu Lamsaar moo nekk sunu càmmoñ ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Sitor Ndour ak Alla Gaye ah mais Sitor attention Sitor ak Balla Gaye ñoom ñaar yegg nañ suuf 4 appuis amagul déedéet Sitor jóg na Sitor toogaat na Sitor am na lu bëgg a def waaye Alla xañ na ko ko. Eh. Alla mi ndaanaan la waaye Sitor it ndaanaan la de ñoom ñaar ñi ngi jàppante ba léegi oh Balla Gaye na ko daan ko oh Sitor Balla Gaye daan na Sitor ndeysaan tu n'as pas démérité jógal champion ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo déggal loolu ndeysaan mbokk yi dégg nga loolu Forza Mame Gorgui 2 sànni na ñaari yoon waa Aliou Gueye waay ndeysaan attention coup perdu yooyu baaxula ah. Forza Mame Gorgui Junior dóor na Mame Gorgui Junior Forza Mame Gorgui Junior attention génn nañ ci biti laa ilaaha illallah Forza dooraat na Forza dooraat na dooraat na dooraat na dooraat na dooraat na attention kaawo génn na ci biti laa ilaaha illa ngay miir oh. Coupe d'Afrique bi lan ngay wax gaynde yi. xanaa la ñu daan wax seeni maam rek ànd ak jom ànd ak fit ànd ak fayda. xam ni ndam nag yàllaa koy joxe waaye bu ñu basé woo ci ñett yi ma la wax lu ñu am rek nit ñi am ci mbégte nit dana xeex ñu gañe ko waaye du teemu mu am ndam nit dana xeex gañe ba pare ñàkk ndam kon ndam yàllaa koy joxe waaye ndam li ñu bëgg mooy ndamal jom ndamal fit ndamal fayda fulla nag dafa nuroo ñàkk kersa waa yàgg koy dindi. waa mais gaynde da leen di encouragé rek da leen di wax leen ñu góor góorgóorlu te xam ne ginnaaw bi ñu ñëwee ba palais présidentiel président de la république jël li nga xam ne mooy raayu réew mi jox leen ko ne leen dem leen ngi représenter tous les sénégalais nañ dem ak jom jooju yàlla nag moom moom ndam yàlla mi yàlla mi moom ndam yàlla yàlla def ñu andi drapeau bi. mais li may wax daal mooy xale yi nanu ko teg rek ci sportivité réew yëpp dañoo dem pour wuti. mais yaakaar naa Sénégal daal ni ma gisee Coupe d'Afrique bi par rapport ak yeneen équipe yi ma gis Sénégal mën na fa am dara. gaynde yi daal ñu ngi leen di wax ñu góorgóorlu fas jom leen yóbbante nag 4F euh, fayam fulla fit fayda buñ ko defee ndi coupe bi. di leen wax ñu am jom rek comme seen mag yi fi jaaroon jom jooju ñu amoon ba qualifié coupe du monde nañ amaat jom jooju rek loolu rek laa leen di wax. na ci ñëpp jàpp ñu bàyyi nag yi ci suuf nga xam ne Sénégal ay gagné c'est le Sénégal qui gagne il est jot na nag. ñuy dugal indi coupe bi. bii coupe bi ñëw képp kuy amateur képp kuy mbër képp kuy sëriñu mbër ngeen jàpp si te xam ne euh, xale yii sunuy xale la ñu ngi défendre drapeau Sénégal drapeau Sénégal bi ñu défendre du drapeau Macky Sall du drapeau Ablaye Ndiaye du drapeau kenn drapeau réew mi la donc ñu ngi leen ñaan ñi nga xam ne ñun ñëpp na nekk benn xam ne luy waay di wut su nekkee benn mën nañ ko am di ñaan Sénégal yëpp nekk benn ban gañe coupe bi indi ko fii si jàmm ak salaam ci terrain bi ngay gëmee li ngay def xam ne réew nga représenté euh, pour man leen a si jël bu baax. ndam rek moo leen war te ñoo xam ne ñii bu nu amee ndam réew mi apaisé nañu góor loolu bay nu coupe bi coupe bi daal la ñu soxla te loolu mën naa ne. Jax production tëgg laa mujj tuddee la ko lan nga ci a ah kontaan rek après donc ma euh, amateur la moom itam mooy amateur mu tuddee ma ko ma jël yëpp delloo ko du Diagne ak euh, Mamadou may Garmi ak Lamine Thiam Dogo ak ñoom ngay jaay donc kon yaakaar naa ñoom ñoom bés moom ñoom moom bés bi ñoom lay dem interview quoi. bu ñu jëlee bés jox leen dañ ko jox regroupement géwél yëpp man nag ñoom laa am ci làmb ku ne xam na ne garmi laa ci ak dogo sa ñoom papa ñëw coloré loolu te ku ne xam na ne alaaji garmi ak alaaji dogo ku ne tuddee nga sa morom doom bu Ousmane Dramé defee lii du guléet defaloon na ko Matar Ba bi mu nekkee maire. defal na ko président conseil régional lu Kaolack ñu jox ko bés mu delloo leen ko daraja nag nit da ci yéwén te Ousmane Dramé mii yow gënuñu la ko xam ku yéwén ci darajaam la muy sa pap muy ñoom alaaji gar mi ak ku mën a doon loo téye téye na ci loo jàpp-jàpp na ci amul xajj ak seen te làmb nag li leen ci am teralante rek lañ ci am lii nga xam ne moom la Ousmane Dramé def nag dafa def rek li buur sin dafa Amadou Jongu Mbaay sunu maam jox nu cër cër bi nag ma kontaan ci loolu maag sama soppe El Hadj Lamine Thiam Dogo si un griot pleure tous les griots kon lii mu defal nekk na loo xam ne lii lu rëy la ndax wax daal man daal bég naa ci kontaan naa ci maa ngi koy ñaanal yàlla. Lirou Diane la ak appartement 221 appartement 221 moo féete sunu càmmoñ moo ñu xaw a wan ginnaaw Lirou Diane xaw a jàkkaarloog ñu nekk sunu ndeyjoor ñaari mbër yi ñu ngi leewaatoo Bruno appartement 221 dem na. ñoom ñaar jàppante nanu Lirou Diane ndax daa bëgg a génn ci biti appartement ñoom ñaar combat ba jeex na waaw waaw appartement 221 ak Lirou Diane ah Bruno li critique na de eh, na de arbitre bi nee na Lirou moo daan la combat bi Fall yaraax la bu Mbita Ndiaye ak Boy Séeréer écurie Boy Niang école Boy Niang ey eh waay Fall yaraax Boy Séeréer boo xamoon Fall mi ni loxo mi neexee Boy Séeréer Fall ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo Fall yaraax na Boy Séeréer sànni na Fall yaraax sànniwaat na Fall yaraax sànniwaat na beneen Fall yaraax sànniwaat na. Fal Yaraax jël na tànk booy Séeréer attention ñoom ñaar fu ñuy mujj Fal Yaraax Boy Séeréer attention Fal Yaraax am na lu mu bëgg ah Fal Séeréer toog nga Boy Séeréer toog nga toog nga toog nga toog nga Boy Séeréer toog nga toog nga si biir bëre bi Boy Niang nga dëkk de. bëgg koo daan moo Garga Mbossé dootuñu wàcc si làmb ji tàng maa ngi fi. Boy Niang mooy kan Dégol mooy sa baay rek may la tudd buñ ko jàppee dinañ xam ne du duñu ay mbërëkat billaahi bu ma si jël dinaa la daan jël bu rëy waaye maa ngi si jàmm rek Modou Mbaye naka waa waaw ñoo ngi si kawam nag lu gaay wax waaw gaay maa leen déglu nag nekk sumay entraînement rek comme ñu ma waroon bëreel daw nañ dem dugg galan gëmuñu seen bopp man maa ngi si teenam liggéey rek képp ku ma làmb boole rek pare naa pour bërëg yow man pare naa pour ñëpp man nekkuma pour benn mbër maa ngi dégg ay mbër yu bëri nag toog télé rek di wax. les deux nee na pare na pour bëre ak kooku du ma ak moom ndax damaa daan pétrole man tey jii géej waaye bu ma demee bay jël ñu nekk si kaw laa jël pas may jël ñu nekk si ginnaaw non non kon samay supporter dañ may bàyyi. mais les deux si kaw la nekk. soxlawu ma ko soxlawu ma ko. fii laa ko yëgee si lamb ji fii laa ne njëkk sa production tuddee na ma lamb. fii laay ñëw si stade bi mu jox ma drapeau bi ne ma yow laa tuddee làmb ji donc muy lu ne ma neex muy sama mbokk di sama xarit tey bés boobu rek dama koy jagleeg amateur yëpp jagleeg ko ñëpp moo ma ne Malaw mi nga xam ne ni ñëpp xam nañ ko si làmb sonn la moom mooy joxe drapeau bi si turu amateur yëpp. mais kon loolu bu neex la ci waaw yàlla sant yàlla julli si yonent bi parce que ñun amuñu lu dul amateur amuñu lu làmb làmb bu jëlee lii jox ko mu delloo ma njukkal lii maa ngi sant yàlla baax di gën a góorgóorlu di gën a xam fi may teg sama tànk ma delloowaat ko nag suma rak kenn la ci man muy Alaaji Ala Ndiaye delloowaat naa ko lépp moo ko Ilimaan Lam. nga ne Gris wax ci moom. amul benn problème bu ma promoteur seetee suñu jubóoyee rek ñu bëre incha allah. pare nga pour bëre ak pour bëre ak amul benn problème. xaaral mi ngi nii di ñëw. nee na pare na nee na pare na jeex na ma ragaluma ko. Jax production seeti na ko mu bañ. laajal Jax ba xam. bu eh, eh, fekkee eh, kaay. quatre combats la rek bëre woo nan ñu fay xaalis ñu bëre faalewu ma ko man doole. faalewu ma ko su ma jëlee duma ko dara. man maa ko gën a nekk xale fuuf maa ko ëpp doole fuuf te nga ko doon xam làmb ji am. arbitre bi sifflé na mbokk yi. combat spécial baa noonu Pape Mbaye la. seen ndeyjoor mooy seen càmmoñ Pambaay mi ngi nekk ci école de lutte Mor Fadam moo jëm mi ngi nekk ci écurie bu Yoff ku ci nekk yaa ngi jiital sa loxo ta tànku ndeyjoor Pape Dia jiital tànku Pambaay jiital tànku ndeyjooram moo jë jiital tànku ndeyjooram moo jë ak Pambaay mbokk yi ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo ndaw lamb ju rëy Pambaay moo jë ñoom ñaar jàppante nañu moo Pambaay attention Pambaay dóor Modja tax na ko génn nañ ci biti attention ñoom ñaar tey ku ci daan mën nga dina la yóbbu fu sori ci làmb Pambaay Modja Modja dóor na Pambaay dóor na ñoom ñaar xeex nañu Pambaay Modja jël na ko attention tax na ko ñoom ñaar fu ñuy mujj Modja tax na Pambaay Modja tax na Pambaay ndax da ko jël seize mbot na ko waaw waaw Modja daan na Pambaay oh, Modja daan na Pambaay laa ilaaha illallaa làmb ngi làmb wane na boppam lamba gi nii Bambay lamb wane na boppam xoolal waa Yoof Jërëjëf combat bu mag bi moo nekk noonu ñu nekk ci dimanche 18 janvier 2015 ci stade Iba Mar Diop Diaks production woo ñu fi combat bu mag bi nekk nii ci diggante Tyson 2 doomu daangu ñoom ñaar ñi ngi xeex Tyson 2 nga xam ne mi ngi gëj a daanu ca 2009 moom doomu daangu ñeenti victoire la tegle ñoom ñaar daje nañu Tyson 2 doomu daangu attention waaw waaw Tyson 2 daan na ko jëli bi gaaw na jëli bi na jëli bi gaaw na jëli bi gaaw na jëli bi gaaw na jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen loolu ah gis ngeen ni stade bi amee woon ambiance mais da xon Pambaay. bu baax kay. foo ko xonwee. non fépp fu ma yaakaar rek am ndam dem na am fépp fu ma yaakaar ah samay mbokk itam fu ñu yaakaar dem mhm. liñ la fay des na. des waaye reliquat bi sax dem si lépp laa si def lépp lépp si def. Mhm. dafa nekk combat wax ne daf ñu daan amul carnet daan ñibbi woon la daan waaw dem ba faw mm-hmm. Eh. Mm-hmm. kon il fallait def si suñu ay armes yëpp lañ siy def. Mm-hmm. combat bi sama réalisateur mi ngi ñu koy tegal arbitre bi sifflé na ñëwal ci ni nga bëree ak Pam. waaw arbitre bi daa sifflé rek même si tegtalu mystique sax moom arbitre bi mu sifflé fi ma war fi mu waroon a dem fa la dem man fi war a dem fa laa dem. ñu la wax pour nga dem fa waaw foofu nga dem. waaw moom fi ñu ma wax ne fa la jëm fa la jëm. kon tôt ou alhamdulilah te waxoon nañ ma ko dëgg mu ne suñu borom waxoon nañ ma di ngeen jàppoo dina génn saaku yi deuxième kii boo ñëwaatee foo ko jàpp da nga koy daan moo tax yàggul sax doo kaa weñ rek ñu tëddal mais ci combat bi dañoo dama gis ni Pambaay mi ngi lay dóor. waaw mooy dafa indi bagaar mooy sànq lu nga wax noonu rek dañ ne moo ja ñemewul parce que Cheikh ngi daan ak ni mu demee noonu. Mhm. mais du foofu. du foofu man daan moo ma intéressé parce que kuy indi mbooloo mu toll noonu waroo faa nekk sax ñu naan ay yàgg naa tax na su fa non na leer rek su ma ko woon bés mu daanu sax loolu la ma gën a intéressé la daanu quoi. Hmm. mais dama gis ci biir combat bi bés bi sa adversaire du dóor dëgg la yaa ngi déplacé wu mais yaa ngi xalaat mais bëggoo xeex bi. non bëgguma woon xeex bi li ma bëggoon mooy mu ñëw rek ma daje ak moom parce que moom chaque jour mais droite am la may dóor nanguwul. mais gauche bi si léegi man bu fekkee moom day dóor. di ñëw sama kaw man loolu laa bëgg parce que su ma dajee moom kon day oyof tool léegi moom suy dóor di ñëw bu taxawee rek man damay sànni gos pour mu gën a ñëw bu ñëwee ma daje moom gisoo ñaar yoon lañ daje benn bi dafa rëcc deuxième fois bi échappé wul. kan la Modou Dia bëgg ndax. ku ma bëgg a jox tey man adversaire. ah yow mais yow laa njëkk laaj ba pare yow yaa may tontu man. maa lay laaj xam bi léegi moom nekkatul ki nga bëgg a bëreel ngay bëreel par damay toog déglu xaar sama ménagère ak promoteur rek ku ñu ne ma kii la mu jaral ma mu bëri ak moom. ki nga daan den daanaan la ko daan dafa war a dem ci kaw. mbër la mbër la wax ma. moom mbër la mooy sa ay moroom ñi ngi ci làmb ji Diène Kairé sa moroom la. waaw Diène moom mu ngi si làmb bi maa ngi si làmb bi. làmb mën nañu boole nekk wax pour moom kese ak keneen ku ci xaaj rek. ma proposé la ñett ba ñeenti mbër ah. Mm-hmm. seraas caat Thiat Feugeula Boy Seye la wax ci ñooñu. Thiat laay jël. Thiat ngay jël yow Thiat. caat dafa garaaw de. Eh, moom lay jël parce que dafa am loo xamante ne nii suma ay mbokk dañ kaa meral na bëtuwuma de kuñ ma si tegal caat laay jël. lu tax. yee parce que dafa amal wax yoo xam ne après combat bi laa koy wax. mais ñamal ma si tuuti. waaye wax la rek ay wax la yoo nga mu ngi jóge seen équipe di jóge seen entraîneur fii lañ invité paam boobu mu naan ay mojja mënul bëre yooyu noonu damaa bëgg a wane ne damaa mën a bëre kon lañ ma jox caat. mbokk yi noonu la demee ah ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit ci disponibilité bi nga xamante ne ni da indi defal nañu ko ndax ku baax la biñ ko woowee yàggul sax dañ ko woo rek ci bi muy baree lañ ko wax ni ko leen bëgg na la jël bantamba mu ne ñu d'accord nañ vraiment ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen bëggee yéen tamit mbokk yi di leen wax ni nii la demee woon tey bantamba la di ñaanalaat gaynde yi sunu borom defal leen jàmm ba ñu indi ndam li ci biir Sénégal ñun ñëpp ñu bég ci waaw di béggee bu baax a baax Babacar Ndiaye ak madame madame Ndiaye Abi Diop xam naa ni Diop ak Ndiaye moom ci biir kër gi foofu dara du doy di béggee per Bégaay di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm comme que dem nga xam naa gaynde dinañ indi dinañ indi coupe bi te yaakaar naa digg ñu ko indaaleel incha allah dinañ jox dig daje mari bi di ñëw mbokk yi ñu bàyyi leen ak suñu réalisateur mu ànd ak yéen Bruno mbay amal jàmm ma lu tax demoo Coupe d'Afrique. maa ngi nii Issa mii di suñu chef kay mu naa dinañ oo waaye oowaguñu ma ba tey samedi ji déggaguma dara te boo gisee lii yëpp am Issa dañu yàgg a wax yàgg wax si noppaam yi ngir iñaane ma rek ne du am na ay góor jigéen ñi si nekk si làmbay kii si football bi dañ maa iñaane bay bëgg a dee su doon seen warugar bu ma bokk ci affaire bu ma ci feeñ soxor rek xam na ne maay star dëgg maa man sax moo tax ñu iñaane ma fiire ma si te man maa depuis yëf yi jege kay fu ma fël la du góor du jigéen paa kilifa yi maire ku ma rek ñu ngi naa billah lu tax demoo lu tax demoo yow kay yaa war a jiitu yaa war a jiitu parce que ñëpp xam nañ ne maay de 100 pour 100 si jigéen. dañ laa soxore. dañ maa soxore bay bëgg a dee même bu ma ko ñu bëri seetlu nañ ko si stade yi ba mu daj ñoom caam si góor yeeg njaay yi ak bint kay yi gis ñoom dab yi ki ñuy wax nab ah yooyu yëpp dañ ma man kay ñëppaay sama zone ku si xas ba doon lion du Sénégal rek que yéene naa ko lu baax parce que ñun ñëpp a benn lañ. ku sa coach. mooy ñëpp a benn lañ si man rek ñoo paay sama coach ñëpp laa. sa remplaçant. man sama remplaçant kay maa sama remplaçant bopp da yee xanaa yeneen jigéen ñi. ku see départ yow yaay départ. <coughs> même bu ma waxulee sax xam nañ ne man benn laa ci àddu. mais François Hollande so bi mu ñëwee waxal na ko boppam ba wax si kanamu Macky ne dëgg dëgg man maay stade de 100 pour cent wu ne man kay Macky war na ma defal lu ne même bu ma euh, kii. <coughs> ma femme elle est là-bas en haut. elle est où. le. rose c'est elle qui s'est habillée en rose. ah oui c'est ma femme. ah ok ça c'est jamais vu hein. ah c'est du jamais vu. c'est de l'histoire de. de la, ak ah Bara Ndiaye mi ngi ñaan rek attention la ilaha illallah Bara Ndiaye daan na Cartouche eh waay ndaw Samba wàcc na soxna Cartouche a ngi noonu di wàcc ndeysaan soxna Cartouche a ngi noonu di wàcc nga daan foofu noonu cinq mbër waaw bëri na moom bëri na wax dëgg yàlla waaw moom dafa soxor kele <laughs> léegi kaa ñu wat gars yi benn ñaar gauche droite xam yii tamit baaxul ci mbër buy foofu bu ñu nekkee par exemple sur nii am nga léegi par exemple ci nii ah mais kët li nga ma jàngaloon. ah mais bii xam naa ko soxor kele non bii xam naa ko moom bii moom bu dee bii nga ma jàngaloon xam naa ko. mais da ngay xaar ba ma pare waaw mais ah, par exemple man yàgg naa si man maa ko bàyyi mu daaneel ma quoi yàgg naa ci loolu. lambisoo ama tamit wër ndomb am. waaw bu gindi grave hmm. fekkee dem wër bi dafa daw rek tàkk leen yi xam nga il faut nga mun a rocc ko. di ko jéem rocc ko ce que comprendre nga wër ndomb ba ba wëree. ay la la mais lan la. oui oui la dama rek. kay toog xoolal kay toog ba waree saa yu yaar sa yooyu yëpp boole kaay bu yeboo de bu yeboo de bu laa ilaha illallah war na ko nombo war na ko nombo ndax da koy buddi eh waay ndaw Samba laa ilaha illallah waaw waaw moom it war na ko nombo moom it war na ko nombo ndax da koy def e waa li rafet na waay waay Bruno Bruno li c'est l'action de l'année yëkkati na ko ba ci kaw na ko ci suuf eh eh waaw waaw Zator waay Zator waay Zator waay Zator waay loos ba nañ wàlluus ba jóg nañ la ilaha illallah ee eh lu rafet a rafet waay gis nga boo lu rafet nit ñi dañuy kontaan si yow bu déclenché rek da ko bëgg a jàpp. jël na ko jël na ko jël na ko daan na ko jël bu rëy ba tey jël na ko daan na ko Mbaye Ngoné Mbaye Ngoné wax na ko de. Ah. nee na woon nee na ma woo ko dàq bëri tuut. waaw lay wax jël bu rëy jël bu rafet na la jàpp ah lii rafet na de jël bu rafet na da ko nag dafa déclenché rek mu yokk ko mu jàpp mais bu dee filmé ngeen jóg bi ngeen wane ko waay Dame Sène xaw ma Dame Sène xaw ma. non il faut daa glissé daa glissé. non naat naa naat. mais war naa leen naaj bi kii war naa leen naaj bi kii. gis nga jëli bu ndax maa ngi. jëli bu rafet na maa ngi bëri dafa dee. maa ngi bëri na mais nag. da ngay dem ba jekk bàyyi bàyyi bëree ba di dóor lu tax. jël na la jël na la daan na la bu bëree doore bu bëree jotee bëreel bu daan jotee daanal waaye bi bëree jotee wuli na ko bëri building ba ñoom ñaar dañuy naxante trompeur jël na yanda daw na ak moom ee eh, trompeur yanda naw bëre bu rëy trompeur door na la ilaha illallah waaye xale yaa ngi bëre oh trompeur ee eh, la ilaha illallah oh. Troopeur Yanda nax na ko ci fugam ci fugu